keneen fees naa sam ñan man maa leen yee siiku ma kaa ñoom yee ñi nga xam te ne yow gaaw a dépassé waat man maa leen yee siiku ma kaa ñoom fees na yore am jot yow yaay yaay xale

non doonu yaay heure heure xëdd yéen yéen heure xëdd yoo xamante ni fii fii laa teg xëdd bi fii bu ñu xarañee doo ñu yee xarañ yéen xam ne nelaw kuy nelaw doo ànd ak sago yow mi yaa ma woon ne yow nga reew ni nga def woon ñu ngi jooy <laughs> yow yaay xam nga la la gisoo ñu yaa leen bàyyi si lu ay góor yu ne léegi léegi ngaaral di nelaw ba naaj bi tàng man mi te banka ma sa baaraam yi sangu waa lii ne boo eh, eh, eh. leen fi lekkee booboo tey lekk leen fi booboo fii si kër man wóoruma lekk leen ba xam ko xadul war a war règlement yu bees yi loolu si la bokkul wóoruma waaw yéen dem leen lekk bonbon ko xadul war a dem leen nga lekk bonbon rek yéen tey jii fii ndogu dem leen bonbon sax la ñuy lekk waaw waaw waaw dem leen yéen dem leen sangu ji ngeen mel ay demal ma ñëw ni yéen yéen a bon yéen man su ma sama yaakaar si yéen ñaañi laa ko teg comme ma sama yaakaar tas na yéen yéen a bon ta sew man nii man dañuy dañuy dugg sama xol bi chaque jour ñàkk jom ba bëgg a dee wan na ngeen mel ne ay demal ma ñëw ay demal ma ñëw la ñuy ndira fii boppam pom pom yow ya, da xam nga lan la gisuñu yaa leen bàyyi si lu leen neex yaa ngi dégg yaa leen bàyyi si lu leen neex bu doon buñ dara nga dul dul yi sap yow man ñii yow ponk lu maam yàlla magum jëm ñii su ma leen man fan jëm ci ah yow ni. yow keroog barki dia laa jàpp kiri dua merak. ma rëkk semua kerja su ma ko Wah man fan lah. jëm waa kon ca rëkk yàlla ya yéen rek seeni koor ñii de billaahi ñii sama sama bëkk kaay moom lay changé ndax xam naa ne li ma jur man man man dara gënalu ma ci man xam nga la yaa ko def looy jur man rek nga waroon a jur te baleen gis nga ñi ba nga leen juree nga leen waroon a rendi ñaare xaritu jëkkër. ah doom nday man dama laa bëgg. ma la raw piir ndax dangaa engagé ñeme wujje. waaw woo. xam nga lu may bëgg damay bëgg ngay jugee fee di ràcc si fii. appartement ba sax damay wéet foog may def loolu yow tamit di gisanteeg yow yaa ma xam fii moo am jàmm di. Ah. ah yow tamit fii mooy àjjana fii ku fi am yi kër nañ dama leen jël leen mbëtt ba ñëw taxaw. taxaw sama xef taxaw sama kontóor bi te ne man kook li ma koy dóor xam na ko ndax téyewul jëkkëram man ma ñëw xale bu ndaw ne ko faj sama diggu loxo ah yow tamit man danga maa yàgg ame ah yow tamit nag maa ngi nii foo ne ah la ñoo sonn yow la yow lu sa yoon yow gi nga fii sa morom nekk fi dégg ma oyo kii moom réew lii da laa doon wax léegi du lekk seen jëw benn yoon. eh naa xëddee ruy. magum soos bu amul may wax ak yow amul may wax ak yow. damaa bëgg ñu dugg yow eh. eh a du ñu lekk seen jëw ñii réew lañ def xamuñu seen bopp. ministre bi lan la. damaa am gan damay waxtaan ak moom tey. ku sa gan. kii eh gan lu tax may ñibbi. musul ñibbi. waa ki moom osé wul. jugal jugal wala ma génne eh. sama kii ma doom day bas kanam. man eh, si kanam sax ñëw. na buuri ñàkkale fanam fale sama yoon ni sa gémmiñ bu rëy xam la yow may ñu sama gémmiñ ni moo la doxaani yow man de ma yëgoon nii nga mel sa gi du ma ci dugg ok sama gémmiñ ni dafa précoce ma tey te sama body simmi ko de sama yére simmi ko tey coow bi moo tax ma ni ma sonn sama yére nga simmi ko sama yére am na sama fii